kon nag wuy ji ku jóg wuy aas am say ngërëm waawoona woote kon nag ku jóg wuy aas am say ngërëm asalaamaaleykum may déglu yëpp ci biir senegal ak Afrique ak le monde entier sunu mag sunu sëriñ sunu xarit Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum xalif général Tijani bàyyam tuddee ko ca Faas borom nasri àq bil àq moo jox ndigal rakkam ji xaritam bi Seydi Abdou Al Amin ak Seydi Boubacar Ibnu Alaaji Mansour ak Maodo Sy Ibnu Alaaji Abdoul Aziz ak kan ah ak Cheikh Ahmed Tidiane nag si Ibnu Seydi Mouhamadou Mansour bi xam mooy taawam ni bés bii xam ni daara yëpp ci biir Sénégal ñi mu ci jàngal ak ay xaritam ay soppeem ñoom ñëpp nu daje si Tiwaawan dun fa daje nag bi yoon nag daje spécial la muy la trente mooy daayira bi xam ni Seydi Mouhamed Mansour ci boppam moo ko samp Sénégal yëpp xam ni ay fonctionnaire nga ci ay cadre comme supérieur nga ci ay administrateur civil nga ci waaye nag nga ci bëri yëpp ay imam lañu ndax noo ngi jóge ci daara jooju ñu bëgg nag le 30 ay sunu mbokk yi sunu xarit yi sunu soppe yi ndax Seydi Mouhamed Mansour amuloon projet ci diine ji ndax ma Maram Mbacke mooy maamam <laughs> kon Xaadimu Rasuul maamam Cheikh Seydi El Hadji Malick mooy maamam waxuñu loolu rek waaye képp këru diine bu nekk ci réew mi Seydi Mouhamadou Mansour sa mbokk la sa xarit la bis bii nag muy bis bi xam ni taalibeem yi muqaddamam yi ilimaam yi noo ko ko sàkkaloon pour di ko ziare ci Tiwaawan léegi nag nu ñëpp ñu bëgg daje Tiwaawan la 30 incha allah ñun ñëpp ñu daje Tiwaawan ziar sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick daw ca rawdu Seydi Boubacar ziar ko radiyallahu taala anhu ziar El ak El Hadji Abdou ñun ñëpp nag njaboot gi àndandoo Cheikh Tidiane. ibnu Seydou Mouhamadou Mansour jiite nu nu jëlee rek Seydou Abdou El Amin mu ñëw moom ci boppam présider ko ak rakkam yu baax yi Seydou Boubacar ibnu Alhaji Mansour ak Maodo si ibnu Alhaji Abdoul Aziz ndaw bés bu rëy ndigal lii nag jógewul kenn de loolu sunu mag Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si El Maktoum sunu xarit sunu soppe xalif général tu xewal gaa ngi kaay leen kon nag wuy ji leen xewal gaa ngi kaay leen kon nag wuy ji leen leen kon nag mooy geleer yaa ngi baawaan bilaay naan si leen ku naanul ci yow laa tuy leen pay tëla